bu kuréel yu bokk ci société civile fii ci Sénégal boo xam ni lañ bëbëtam moo di topp lépp lu ñëwal li ñu duppee pacte national pour la bonne gouvernance lañ ca jublu moo di ñaax nguuru Bassirou Diomaye Faye mu sàmmoon teg pacte bi nga xam ni daal dina ko xaatimoon laata ñu koy fal njiitu réew. mais loolu nag du lu yombewul noonu parce que xam nga président bu ñu fal. li nga yor ñu ko soxla ci bëri. léeg sax dañuy dem ba captation pouvoir am i intérêt rek donc loolu moo tax mbir mi du yoonu yomb kon ku nekk li nga taxaw jàpp yore da ci taxaw taxaw tem xeex ko ngir mu sotti. mu mel ni kon société civile la muy sàkku moo di ñu jëmal conclusion yu tukkee ci ay assises nationales waaye itam ca commission nationale de réforme des institutions di CNRI. nekkoon liggéey boo xam ne ni dafa amoon waxtaan yoo xam ne dafa xóotoon ci réew mi dem ba fu mu gën a soree ci réew mi askan yi wax lu ñu xalaat ba moom loolu tënku. moo tax loolu am lu ñuy woowee benn xeetu légitimité populaire ba pare am légitimité scientifique ci ni ñu ko doxalee mu tegu ci ay xam-xam bu leer. Eliman Kan ak ña mu àndal di woo ko na njiitu réew mi ngir mu bañ a topp tànk kii mu fu wutu Macky Sall mi ñu jàpp nii respecté wul woon pacte bi nga xam ni si woon na ko ak société civile ci atum 2012. Euh, Macky Sall tamit mu ñëw teg ay affaires yu leer ñu ne ah waa ji bëgg na jooyante affaire yi enrichissement illicite et cetera nañ ko bàyyi mu liggéey. ci après mu wëlbatiku changé moo tax loolu doo ko dund ba pare di continuer naan da naan période de grâce période de grâce amul li fi nekk mooy ku su ne lii la war na ko def gis nga li ñu fi teg jox leen réew mi li leen war mooy doxal réew mu jaar yoon. ca noonu kon ak kuréel yu société civile yi la di xam ne ni danañ taxawal ak jumtukaay boo xam nii la koy tax a jóg moo di gën a dooleel lépp luy institution fii ci Sénégal tax ñuy saako ab waxtaan wu yaatu.